سنو دروس القواعد الفقهية آه، مملني قواعد فقهية نك كم نينك أحيوان آه، تحاولون نين دروسي وقت جي جالة تليك وارون موي ويرو كوالوي دخون سنو جيجنتي دنيان سنو برام سبحانه وتعالى نونغول ني سنو كور نونغول ني سنو كور te defal ñu ci te may ñu fan yu gudd yu ànd ak barke ak wërsëg bu ñu ko mën a liyeere te bu ëllëgee mu boole ñu fil firdawsil ala mu mel ni suñu qaayida biñ bëgg a jël tey muy qaayida bu am solo di qaayida fiqhiya boo xamante ni borom xam-xam yi dëppoo nañ ci boole ko ci alqawaidul kubra qaayida bi nag mooy alaadatu muhakkamatun aada lu ñuy atteel la aada dañ koy atteel euh, misaalum loolu nag mooy ñu ni ci misaal réewum sàngam day seen aada mooy nangam bu boobaa bu ko yu rafet yi nangoo xel yu rafet yi nga xam ne dañu wuuteeg sharia bu ñu ko nangoo rek dañuy jàpp ni kon loola kat laaju laa junaaha alayhi euh, nekkul lu aay lu mel ni ñu ni tey paasub ndakaaru bu dee sept place trois mille cinq cent la bu dee alo Touba cinq mille bu dee car mille cinq cent loolu boroom xel yu rafet yi am expérience ci mbir mi ñoo dëppoo daal ni lii kat noonu la ñuy doxal ci suñ biir ginnaaw nag charia terewu ko bu boobaa dara du ci nekk nekk aada kañ la ko sharia doon nekk doon tere tasxiir am tasxiir mooy buur bi wala ki yor réew mi daa di wax ni nangam prix sangam lañ koy jaayee nangam prix sangam lañ koy jaayee nangam prix sangam lañ koy jaayee bu boobaa kenn sañut indi sa prix bopp di ci jaay luut allahuma luut nga wàññi daan di man kat lii lañ wax waaye man damay wàññi istixsaanan ngir rafetal wala ixsaanan ngir rafetal waaye bu fekkee buur dafa xaw a dafa farta dafa xaw dafa buur dafa tasxiir ba pare dafa xas tasxiir bu boobaa lam tasxiir lañuy doxee bu fekkee tasxiirul nag ay nit dëppoo ne kon ñun day dañ dëppoo ne lii nangam lañ koy jaaye kon dañ dañuy jàppandoo aada ju rafet la kon bu fekkee wuutewut ak xawaayidi sharia mu mel ni tey tey ci misaal ba tey it ñu ni woon kenkaayeer yi nekk Tuubaa yëpp ci Bawol yi nekk ci Bawol yëpp seen aada mooy buñ la jaayee marchandise ñoom ñoo la koy délivrer ñooy wut seenub sareet wala seenub oto teg ko ci indil la ko sa sa kër te loola du bokk du nekk looy fay maanaam xidma majaaniya la xam ñoom ñoo koy délivrer indil la ko eh, waaye waa Ndakaaru ak waa Kajoor ci misaal ñoom buñ la jaayee marchandise yow yaa koy yóbbul sa bopp yaa wutul la ko yóbbul mu yóbbu ko wala boog nga fay leen ñu yóbbul la ko loolu la ñuy tuddee al aadatu muhakkama eh, aada lañ koy atteel bu boobaa bu fekkee da ngaa jógee Kajoor wala Ndakaaru jëm Bawol boo fa jëndee doo sañ imposé leen aaday waa Kajoor ndax ñoom seen aada mooy lii doo leen ko sañ si imposé tey bu ngeen ci xuloon ma dem ci xaadu yi mu leen di atte moom day daal di wax rek ni al aadatu muhakkamatun aadakat dañ koy attee loolu mooy tax kon boroom xam-xam bi bu ñu koy taarif dañuy wax ne al aadatu ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة من أعرق آه. مويلو خمس النية فسخ بروم فسخ تخلي شيء بريغا خمس النية دينك يبامو لأبو بني يونتي بس بي خلي يب نونغو خلي رفدي بطارك نونغو بوبا يحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعه aw ittifaaqil mutaaqidayn bu boobaa aada lañ koy dañ koy attewoo dañ koy attewoo bu fekkee werante am na ci wala juyoo aada yooyu dañuy attewoo li feek wuutewut ak xawaay di sharia wala mu wuuteeg li nga xam te ñaar ñi jëndante jaayante dëppoo woon nañ ci ci ci njëlbeen ga ci misaal d'accord nañ ne kat aaday waa Touba mooy buñ la jaayee dañ lay aaday waa Kajoor mooy buñ la jaayee duñ la délivrer yaay yóbbul sa bopp ma jëgé Touba di génn si daanaka ah man kat fama dëkk lañ fay doxal may kula jaay mo lay yobul jaay kat bi daan ni ma nangu naa loolu d'accord na lolu bu ba buñu wérante dañ nan ah jaay kat bi kat ya toñ ndax al muslimuna ala shurutihim julli di dañuy atté wo ci seen i seen ci seen charte in charte chartante woon ñuy doxal mbir bu boobaa nag tasarrufaatul mukallafin yooyu yëpp bu boobaa aada koy taqyid lool nak wute lool nak bokut ak ñuni dañuy doxal aada ay sharia dedet say yu wute sharia moom dañuy delu ci sharia leeg ne nag borom xam ne dinañ woowee qaayida bi ay tur bokk ci tur yi ñu koy woowee leeg al ahkam tu'tabaru bil awaaidi atte yëpp dañ koy dañ koy dañ koy bàyyi loo xel dañ koy bàyyi xel ci aada yi dañ koy bàyyi xel ci aada yi koy gar مرسين برام بحني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف شاهد بمي وأمر بالعرف وجه الاستشهاد موي نكت آدكت شريعة دانا كنون قبوته وتقمم مريان دب عليه الصلاة والسلام ci xadiisu soxna si abi sufiyaan ba mu dikkee di jàmbat ni ko abu sufiyaan day dafa nay du ma jox lu ma doy yonente bi dan ko xusi ma yakfiiki wa waladaki bil maaruf xadis boobu ngi ci saxiixayni ci buxaari muslim jëlalu la doy ak sa waaye nag ci ma bil maaruf ci luñ xam ci aada bul jël lu ëpp bokk na ci misaal yi ko borom xam misaal ba tey tamit eh, baat yi nga xam te nii mooy baati fase baati fase léeg-léeg am na baat boo xam am fasale ci waa Saalum waaye du nekk fase ci waa Bawol waaye du nekk fase fase ci waa Kajoor bu boobaa kon bu waxee baat booba dañuy xool moom waa fan la waa fan la ñu attewoo ci na ko ñooñu jàppee waaw ñu attewoo ci sag boobu mi ngi sa dox may naa la sa baat wàcc naa la boo gisee guro yeel yooyu yëpp day delluwaat ci aada yi maanaam li fekk daal nekkul lafzu sarix fi talaaq baat boo xam te ñëpp dëppoo nañ lii ku xas wax ni fase nga bu boobaa dañ koy delluwaat ci aaday aji wax ji rek nañ wax leen ne al maaruf urfan kal mashruuti shartan liñ xas xam ci aada ba rafetlu ko daanaka moog charte buñ te ñooyam bu fekkee ci misaal nit ki dañoo wax ni moom ak soxnaam kat bi ñuy sëy soxna si néewu ko jox ma nangam ci ak cen waa kër soxna yi tamit waa kër soxna si tamit néewuñ ko jox ma jox ñu nangam ci ak cen bu boobaa dañ naan rek kon laha mahrul ndaw si bu boobaa dañ naan moom kat mahrul misli lay am maanaam keroog ay kemam bu fekkee ñi mel ni moom cinq cent leen di may wala un million bu boobaa loolu la ñuy jàpp nit ki noonu yi bu fekkoon nikaaxu shubha dafa am wala wat u shubha am nit ki jaawale kenn ak soxnaam dem sëy ak moom te xamu ko woon mu mu leer ni du soxnaam te du soxna keneen tamit bu boobaa dañ naan rek kon na ko jox maharul mitli na ko jox cenuk ay kemam loolu aada la moo nag ñu naan ay kemam kat li aada ci ñoom mooy téeméeri junni lañ leen di jox wala juróom fukki junni wala wala million bu boobaa ci loolu la ñu delluwaat atti ci loolee su ko defee kon loolu bokk na ci furoo yi muy almaaruf orfan kal mashruuti shartan comme ni ñu ko waxee woon sànq ci wàllu ak can ci ñaar ñu sëy te tudduñu woon ak can wala boo ku jaxasoo jigéen te teyu ko jubluwu ko ci jaawale ko ñu war ko may dañ naan ko mahrul mis lay joxe bayan farax bi ci banqaasoo mooy al mumtaniu aadatan kal mumtanii xaqiqatan lépp loo xam te nii te nekk ci aada nga xam ne aada da ko jombal pour mu nekk bu boobaa dañ naan dëgg dëgg nag loolu du luy may nekk qaadi bi day attewu ci loolu ci misaal tey buñ ne woon buñ ne woon tey euh, waaju benn soxla ko boo xam ne leer na ñëpp ne kii yurub dara amul xaalis mu jóge woon ca saw accident di ñëw ci tribunal bi daan ni ah man kat sëriñ Abdourahman bu Daarul Muxti daf maa yoreel téeméeri junni wala daf maa yoreel million ca amul fu mu ko bind amul lenn bu boobaa bu ñëwee bu waxee loola qaadi bi muy kii àtte lan yasmaa daawaahu du ko nangoo diglu ndax la tax mooy dañ naan al mumtaniu aadatan kal mumtanii xaqiqatan aslan dañ naan ah Cheikh Abdourahmane de waxuma la sax eh, dara waaye baaxoowu di génn di génn fenn ngir njàngale mi jàngale benn ñu ni ah waaye tamit sell gi mu sell rek baax gi baax ak dimbali gi muy dimbalee aada day jomb waa ji nga xam te ni nii mu seesuta xam lu am ci alal muy taxaw di ko lebal sam noonu kon dañ naan ko al al al mumtaniu aadatan kal mumtanii xaqiqatan loolu yamtaniu aadatan aada nanguwut maanaam ku mel ne sëriñ Abdourahman di yoreel benn waay boo xam mësee su ko xam ci ak mbaax mësee su ko xam ci am xaalis di ko yoreel somb toll noonu moo tax kon qaadi bi tey gersu ci yu mel noonu du ko nangoo xool allahumma nuru nag mu indi bayina bu leer nañ ni diw mi kat yoreel na ma nangam te mi ngi nii fii lañ ko bindoon maag moom kii moo ko seede ak kii bu boobaa kon na aada aada jombaluwu ko waaye saa yoo xamante ni aada jombalu na lu mel noonu rek dañ naan al mumtaniu aadatan kal mumtanii xaqiqatan yooyu yëpp day dugg ci xaayira bee di nga xam ne al aadatu muhakkamatun ni ki noonu tamit eh, al fatwa tatagayaru bi zamani wala boog al fatwa bi tagayuri al axwaal eh, fatwa day soppiku mën naa soppiku ngir ab barab mën naa soppiku it ngir ay jamono mën nañ la fatwa benn fatwa ca ndakaaru nga laaj même fatwa bi nga laaj ko ca Touba istifta boobu ñu tontu la beneen tontu loolu xamee xamees na ko ci ci ci charia Ibnu Abbas benn waay mos naa ñëw ci moom ni ko ku rey nit luy ab atteem Ibnu Abbas ni ko ku rey nit daal ab atteem mooy suñu borom dina ko jéggal bu tuubee nes kiis keneen ñëw laaj ko même laaj bi mu ko ku rey nit ab atteem mooy dañ koy rey te it suñu borom du ko jéggal te bu deewee sawara la jëm ñu laaj Ibnu Abbas radiyallahu anhuma lu waral loolu mune ku ndeuk ki dafa gis gis néeg gi ñagi kanamam xam ne kii daa rey ba pare xamne ki dafa ray ba pare buntu tuub rek lañ ko mën ubbil ko mujj ki nak mu gis ko xamne ki ray day ray a ray gi mi bëgg ray nak tax mu xop ko ngir tiital ko ba du ray kon gis ngeen al fatwa tatagayaru bi taghayyuri al ahwal ni ki non al fatwa tatagayaru bi taghayyuri al azmani wal amkina fatwa jamono bu nek lay soppiko ci misal Euh, xaadi bi àttee di war naa am ci diggante ñaari nit ñu doon sëy ñu fase am seen diggante xaadi bi daan ni borom kër bi yow kat weer wu dee dinañ la dinañ la dagg cinq cent mille nga koy jox sa soxna si euh, ba iddaam di jeex ba idda jox say jeex ñooy rek juróom fukki junni nga koy jox ba keroog muy am doom bay nàmpal ba nàmpal mi jeex keneen ñëw ci même jotaay bi قاضي بينكو يا دنيا لان فكي جوني ويرو جوت نخ الأحوال تتغير ولذلك فإن الفتاوي تتغير فإن الفتاوي تتغير كون فتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والفتوى تتغير بتغير الأحوال لولو في فروع قاعدة بيوخ العادة محكمة كلا بوكو kon ndeketekat aada dafa am solo am solo goo xam te nii des koy bàyyi xel ci sharia des koy bàyyi xel ci sharia islamiya lii ab xaayida la bu am solo boo xam te ni waroo xam yi ci seeni atte ci xudaat yi ak ñiy atte yëpp dañuy bàyyi xel xaayida bu mel nii moo tax ay masaayil yu am solo la saa yu ñu wutee rek dañuy delluwaat ci qaayida bii nga xam te nii demee ni aada muhakkama bokkut ak nag ñu ni aada yi waa Casamance kat mooy famille bu nekk day am xambu wala aada yi waa nangam kat mooy lu ñuy bëgg a dugg dañ koy seetlu bu boobaa duñ jëfandikoo qaayida al aadatu muhakkama la tax mooy dafa wuute ak sharia dafa wuute ak sharia saa yu nas ñëwee rek daan ni nangam su aada wuuteeg nangam boobee dañuy bàyyi aada dañ delluwaat ca nas ba wa in tanazatum fi cheyin fi cheyin farudduhu ilallahi wa rasulihi ilallahi wa rasul saa ngeen ci dara delloo leen ko ci yàlla ak bu yonenteem alayhi salaatu wasalaam kon suñu wuutee suñu jëfante ci suñu biir suñu aada yi dañ koy delloo ci sharia islamiya mu atteel ñu ko waaye bu fekkee nag wuute nañ waaye lañ ca wutee amul benn texte bi ñëw di ko weddi amul benn texte bi ñëw di saxal dara bu boobaa dañ naan alaadatu muhakkamatun alaadatu muhakkamatun aada kat dañ koy attewoo aada day nekk lu ñuy attewoo ci suñu sharia islamiya wallahu taala alam wa radi ilayhi aslam wa salli allahuma wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh